na lu mat at euh, yalla def que euh, au càppandal ba euh, am dogal bi nga xamné daanu dogal bi mu ngi le 28 avril bi passé mhm. c'est-à-dire 28 avril 2021 mhm. c'est-à-dire at bële passé mhm. lu mu wax ci teunk meun nañu que dafa système ou parrainage bi nga Sénégal mom la teg Euh, dëppoowul ak ponk ak charte yi nga xam ne moom la démocratie di doxe mhm. et ci loolu ñu dànkaafu Sénégal ne ko may nañ la diirub juróom benn weer bi nga xam ne war nga indi ay coppite maanaam ci sa législation maanaam mhm. système boobu danga koy teg ci suuf maanaam dañ koy supprimer da nga koy dindi parce que baaxul. Mhm. Euh, ba ñu jógee ci loolu euh, ñu jàpp ni. que Sénégal état de droit lu ñu ko mos a xamee. en tout cas moom lay woote. Mhm. Euh, ñu jàpp ni aussi ci nga xam ne mooy président Macky Sall euh, bu yàlla defee euh, dogal bu mel noonu daanu fii ñu ne li nga def. maanaam ci protocole bi nga xam ne ci la cour bi sukkandiku. Mhm. maanaam mën nañ jàpp ne rupture de la démocratie la maanaam da nga ponk yi nga xam ne maanaam da nga xëtt ponk yi nga xam ne ñoolal démocratie mhm. euh, ñi nga xam ne euh, muy Guinée coup d'état bi euh, ñooñu aussi dañu xëtt ponk yi mhm. parce que protocole bi moo prévoir loolu mhm. rupture de la démocratie de quelque sorte que ce soit Mali aussi pareil moom mu jël bopp croisade boobu ne ñooñu dañ leen war a sanctionner alors que moom ci boppam ëttu attekaay bi daf ko sanctionné parce que daf ko ne li nga def ak ci anam yi nga xam ne moom lañ la faloo mhm. fale jaarul yoon bu ñu toppoon logique cour bi sax maanaam élection yi dañ ko war a tëggaat euh, dakkal mandaam mhm. mhm. mais yegguñu foofu ñu jàppoon ni ngoram dina ko may euh, jarul sax ñuy insister que dina dellu ginnaaw mais defu ko maanaam dañu ñëw ci élection locale euh, ñu toog gi leen seetaan ñoom ñu naqasaale manam waxuñu ci waxuñu ne dañ koy jël wala duñ ko jël mhm. dañu consensus amna mhm. euh consensus euh, réviser texte de loi consensus madame, de la mhm. euh, yeen fi tok yeen ñi tok ci plateau bi bo changer règlement ou organe de presse donc dégo bi la engagé donc dañu leen supprimé ñu texte bi mhm. euh, mu consensus ñu jàppoon ne bu ñu ci loolu au moins mbirum parrainage dootu ñoko wax fi ci Sénégal mais comme gis nañ ni élection yi yombul won ci ñom ñu nous euh, euh, la nga buum ci mboy mboy bi mom mu daldi indi wat forcé ne dañuy indi parrainage mhm. euh, parrainage bobu ci anam yu ko décalé, mom moy ministre de l'intérieur dafa jël arrêté le 3 mars 2022 nek élection yi pour bokk ci euh, manam lim bi nga war andi ci parrainage manam mhm. dañu andi indiwaat forcing indi ko dekkalaat ko ñu ngi doon wax consensus mais bi ba consulté wuñu kenn mhm. ñom ñoo jël unilatéralement responsabilité bobu en même temps jël décision ferme xëttu yoon mhm. euh, ba ko défé ñun euh, dañu jël mbir mi jébbal ko ëttu attekaay bi nga xam moy cour suprême du Sénégal dugal ñaari recours recours bu ñëk Euh, lu ñuy sàkku ci ëttu attekaay boobu ne ko arrêté bi nga xam ne moom la ministre de l' jël dañu lay ñaan maanaam nga suspendre ko nga dakkal ko mm-hmm. nga dakkal ko euh, loolu loi organique ku cour suprême moo ko moo ñu may sañ-sañ boobu yéen a ngi fàttaliku ba ñu jógee ne Covid dafa am. Mhm. ne dootuñu indi kenn ki nga xam ne faatu nga yaa ngi bitim réew ñu indi la Sénégal ñun dañu taxawoon attaqué mesure boobu. Mhm. bañ ko attaqué. ci 48 heures yi nga xam ne moom la yoon tënk Cour suprême bi ci la déterminé wu mais bii tey lu ñu ci jaaxal dans ce cas euh, précis euh, ci ci lan ngeen tënku ci wàllu droit ba jàpp ni suba parce que hmm. suba euh, lañuy xam fu yëf yi di mujj di ngeen am gain cause waaw euh, avant maa yegg ci loolu maanaam tey bii pas déjà daa am li nga xam ne moo ci njëkk tey xel hmm. mooy lan mooy recours bi ñu ngi ko dugaloon le vingt cinq mars bii passé le vingt cinq mars li nga xam ne yoon dafa tënk cour suprême euh, ne ko ci diirub ñaari fan nga war a atte mbir mi euh, ñu xaar ñaari weer euh, woowu ñu woon mhm. léegi comme démb en tout cas man jot naa xibaar que suba dañu woo pour ñu taxaw ci ëttu attekaay boobu ñu ngi njort ni cour suprême en tout cas dana wañ

Euh, yéen ñii ñun ñii ñëpp ku ciy dox carte d'identité CDAO nga am booy voyager passeport CDAO nga mhm. maanaam ay citoyen CDAO la ñu mhm. tey euh, boo ñëwee euh, dugg ci espace bu mel noonu mais CDAO mooy déterminer ci yan anam la ñuy dundee ci yan anam la ñuy voter ëttu attekaay bi nga xam ne CEDEAO daf ko teg ne ci protocole ci texte yu ñu am bu amee li nga xam ne dafa am werante wala ñàkk juboo mhm. eh, ñi ñooy arbitré juge yooyu xamuñu Ablaye Tine xamuñu Macky Sall ñoom dañu àtte ci yoon ak ci dëgg ñu ne ko li nga def du dëgg du yoon mhm. mu ne du ko dindi donc loolu lañu ne juge yi yéen xam ngeen nu droit dëppoo droit nu mu dëppoo moom mooy lan moom mooy règle bu ci nekk règle bu ko ëpp gëdd ëpp ko maqaama dafa war a méngoog moom sinon mënta jàll mhm. mooy li ñuy wax pyramide de l'égalité ñu ne ko ministre de l'intérieur mënta jël benn arrêté bi nga xam ne day salfaañe décision bi nga xam ne moom cour de justice teg et que euh, muy di CDAO. Mhm. et surtout lu ci gën a euh, yéeme moom mooy suñu constitution ci boppam moo ñu wax né Senegal Sénégal demee ba traité sur le plan international euh, bou démé ba signé ko bu ci euh, traité bi lu prévoir mo upp gëdd mo loi nationale ak traité donc ci mom euh, arrêté bi du deug du donc lu ñuy sakku ci auto bi mom moy bu dé ñom loolu daf leen ñu itam maître am mbégte dalalaat ko fii alors maître sànq maa dégg nga ni la vingt cinq lañ leen waroon woo ci diggante bi lan moo tee sa xel oh, le vingt cinq la ñu dugaloon recours voilà bu nga xam ne euh, loi organique bi dafa ne dañ ko war a arté ci ñaari fan parce que référé liberté lañ dugaloon référé liberté ci tënk moom mooy lan moom mooy dafa procédure d'urgence dafa am ay droits yi nga euh, titre deux constitution bi ko garantir ñu woowee droit fondamental droit de vote c'est un droit fondamental donc ba ni arrêté bi décision wu cour de justice de la CDAO, bi nga xam ne dafa ne parrainage de libre participation Madame day est ay galgal ak ay dëgg sërëx bu ñu ko dekkalee rek atteinte à ce droit de participer aux élections d'accord donc les nag ba ñu jógee foofu moom mooy ba ñu ko tegee ci ñaari fan yi ci normalement mon la yoon prévoir dame délai yi nga euh, yoon daf ko prévoir duñ ko respecter toujours dama japp ni euh, ñaari weer wu néggandiku dafa nekk lu ëpp ci loolu ci question bi nga xam ne c'est aussi crucial comme nu ko waxee pour la stabilité démocratique et la stabilité et la paix sociale. d'accord irrégularité yi ñëpp concerté dañ ko alors wax nga ni euh, suba cour suprême dina weñ peut-être espérons que dina ko weñ bu fekkente ni loolu moo am kon mën nañ jàpp ni élection yi dañ koy dàq waaw euh, lolou mom du meuna ñak parce que euh soudé wax nañ droit rek manam arrêté bi mom dañ koy nénal lolou lu leer la li ma la wax léegi ñu nek ci délai manam mbir mi fokk ñu jëlat ko parce que comme ndeyu mbill bi boy arrêté bi manam acte yi nga xamné yépp lañu poser depuis le 3 mars ci fofu le sukkandiku bu cour suprême neewee li nga xam ne mooy ndeyu mbill mi maanaam méngoowul ak yoon lépp li nga xam ne moo ci jóge wala moo ci juddoo maanaam dañ koy neenal donc ci tënk pour répondre directement l'élection est du Mouna le 31 juillet ça c'est évident. d'accord alors euh, Brina na ay opposition bi di def gis itam DG euh, direction générale des élections à travers le ministère de l'intérieur acte ñu posé bokk na ci organiser waat coalition jetons euh, pour nous vraiment organiser Miri, mais gis nañu a am na pëccëxoo bu est-ce que l'état itam mënuñu ci doute opposition que nous avons lu leen de dañ waaw ñun moom loolu aussi lu tax déggu leen ñu ci euh, euh, ci la bokk. ñun dañu jàpp ni euh, boo demee di xeex ba ñu jox la dëgg doo ñëw di suufeel sa bopp maanaam boo jàppee ne yaa ngi ci dëgg doo ragal ñun dañu jàpp ni Macky Sall nekkul ci dëgg nekkul ci yoon.

Euh, manam luñ doon xaar ci moom def na ko maanaam mbirum parrainage ak sax du am. Mhm. et que loolu yamul ci cour suprême kese. parce que euh, ba ñu rejeté liste gëm sa bopp manam ci recours ba ñu dugal ñoom argument boobu développé nañu ko. Mhm. et puis mu am ci lu doy waar. parce que dañu ñëw ba ñu développé que logiciel yeeg yooyu yëpp am na problème mu fiabilité et que nous, am ay nga électeurs mais de toutes les façons euh, mbirum parrainage mom kenn waru ko won sax wax fi mhm. ñu juge ou conseil constitutionnel Nous la mbir leen di wax est-ce que tay Macky cour de justice de la CEDEAO ñemé na supprimer le parrainage mu ne non seulement defuma ko mais damay tegaat beneen arrêté est-ce boobu mën nañu ñëw daw ci ginnaawam mais ñoom dañ ko teg entre ma jeexal